ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal di bës fii ñu bind abonné wu nga daal di bës tous cloche notification bii dend ak moom rek lépp daal di yem. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillahi na'buduhu wa nasta'in wa na'uuzu billahi min sharri anfusina wa min sayyi'aati a'malina wa man yahdillaha wa la mudilla lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasula leen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy seetaan ci sunu plateforme yi ak di ñu seetaan fépp foo xamante ni ñi ngi fi ci biti réew ak ci biir réew mi ñoo ngi leen di ndokkeel di leen jaar bu baax a baax ci seen jotaay bu màgg bi nga xamante ni mooy alxikma dikati nak wara waxtane ci lepp lo xamanteni mom la aduna yoyo waye wara waxtane ci gaay yu bax yi nga xamanteni japp jàpp ni moy suñu référence ci aduna ta référence ci aduna nag yalla dañu ko moy ba mu doy seuk fi ci Sénégal na ci nak ci ñi nga xamanteni rawati na ci mouride gi ci ñi topone Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu tay nak ñu wara sang bu tedd waaye war a jataayoog tamit kilifa gu tedd war a waxtaane kilifa goo xamante ni kenn la ci mag ñi tonn mag ñi toppoon cheikhul xadim radiallahu taala anhu muy sëriñ Massamba Kanni Bousso incha allahu rabbi ci lu yàggut dara ñu war a dëgmal bisam bi nga xamante ni mooy bis mu màgg bi war caa def lépp loo xamante ni war na ci ànd waaye kenn ci njabootam kenn ci ay sëtam ñu toog ak moom ñu war a waxtaan ci jëmm ju tedd jooju xam naa dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo sang bi ñoo lay ziar. جلجف أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سنة أو فريدة مباكي يني سيطان نيغي لين دوني بوخ دي لين زيارتي دي لين دوكيل دي لين بالو أق بوخت دي لين بالاق دي نيانا الشيخ محمد المنتخى مو ياغي فتي عندك وير بلم أم ييني لغي في شيخ الخديمي تي طولب الإسلام بي مو دفتي لو كوي نجرتم دي نيانا البوخ الله جفال بوسو تيمبلين ميغي خمني مو في توك جتاي سرين مسامة كارني بوسو suñu borom sàmm ko aar ko te dëgëral ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne waa moom it ci liggéeyub Cheikh Massamba Kanni bi mu def ci lu kawe njortam di la nuyu bu baax te di la namm lu bare bare di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan ñëpp ak sëñ Mamor ñoom. macha allah sang bi jërëjëf sëñ Abdou bu so ci nuyu seeb Abdou Khader Bousso ci nuyoo bi am solo bi ak tabarkàlla ci jaariñ wi nga xamante ni am na solo. ci déggalu ci coono yi nga xamanteni jankonté nga ko bay ci bërepp bu tedd bi nga xamanteni fi lañu amali bis bi xamna rek sun doon teunk dund ku tedd ki nga xamanteni mom moom lañ wax ra waxtane ci teunk la ñëk ñi dugg ci ndax li olof naan nit mom bala nga dugg ci kër faaw nga aw ci buntu ba te hmm. buntu kër gi moy Serigne Massamba Kandi kon war nañu teunk tuuti ci ak dundam la ta ko ñuy dugg nak ci waxtane wi haqiqatan kon sang bi ñu doon teunkal ci ku baax koku rek lan nga ñu ciy kiiwal jërëjëf euh, euh, tënk dundub sëñ Masamba Kanni xamna ne du euh, mënees nako koo tënk ci ñaari baat muy mourid saadix la bo xamne ne la won maj suub mu donon euh, rar na lol ngay gis ci askanu mbuso bi xayna euh, ñu ñi ñu ñi wax ne ay ay majazib lañ bari wu ci fogg na bo ci nee sëñ Masamba Kanni ngir nga gisat ci ku ku ñuy tuddé ab Eh, yombu ci té lool liko waral moy murit sadiq gum donon euh murit sadiq la won non seulement waye Pastef bi mu amone seigne moussa makani du du du mak lool lool lool 1878 79 ci la adina euh soxna fadja Ja seigne bi la marcel mom la bokal année bu mu ñëw àddina waaye booy dégg wi ak jëf yi da nga japp ne ca murit yu jëkk ya jëkk la ndax jëfin wi ak ni ko ni ko sëriñ bi seedeel li tax ma wax la itam murit saadix la maj suub la mooy dafa defoon Seex Ibra Fall ci ak taalibe loolu la waxoon sëriñ Tuubaa mhm. ni ko euh, dama bëgg am lu mel ne li Seex Ibrahima Fall am bi ko sëriñ bi liggéeyloo ba gërëm ko daf ne ko may nañ la waaye may nañ la ko waaye nag yow julli ci la bokk mhm. loolu la ko waxal ne ko yow nag julli ci la bokk maj suuf gi li tax wax ko moy dina ci joxe ñaar yu koy deugal te di firndel benn bi sëñ mag bi ci bopam moko ko ne ko maj suuf nga benen bi sëñ musa Ka ci bopam moko ko seedeel bi ko sëñ bu mag bi seedeel ci maj suuf gi ci jess bu gi mooy e, bi mu ko bindon don ko ñaax di ko wax ne ko khilil kanini yu man qad khila inna lahu jazban ilallaahi hatta qalbuhu bahara sama xarit bi yow mi nga xamne ya ti ci ci njabotou kanni gi njabootuk soxna kanni mbacke yow mi nga xamne ne wax nañ ne ab majzuum nga nga xamne dañ la jess bu ba nga yegg ci sa borom ba sa xol di di di di di berberi ci ak leer mhm. haza wa ya khillu kun bil amri mumtasiran wala tazal an nawahillaahi munzajira yow sama xarit bi na nga fexé ba tënku ci ndigalul suñu borom waye bul dañ mukk di jajju ci ndigali suñu borom yi bul dañ mukk di jajju ci di moytu téré suñu borom yi lolou ku dem ci majmua bi bi ñab laxat dajale da nga ko ci fekk muy leetar boo xam ne ay bayit la àndal sëriñ bi bindoon ko jëmale ko ci Seex Masamba Kanni euh, beneen bi ci topp di li ko sëriñ Musaa Ka seedeel euh, wax ni yaa jaban sëriñ Masamba Kanni fañ tànne xutbu ya fa lañ ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam ba am wusuulu bu Bàmba daa xaddiis mu naa ko askay maj suub la woon moo nuru Bàmba moo xay soub la won mo nuru bamba mo xay bu bamba da hadith mu ko askay bu mag mi bu di di di waxtan def tombe yoy mu dan def day laajte ana Masamba Kanni ndax mi ngi fi bu fekente ne sëñ Masamba Kanni ngi fi ñi ko mi ngi ni bu ne wu fi mu ñu jokkulante ko ci mbolo mi ñu wowe ko mom kërëm dafa nekkon biir njaareem kër gu mag ci wetu kër señ bu mag bi bo démé tay ji moy kër señ Moulay bu soga fa Masamba Kanni ko mom waxtani señ bi dan def yeb dafa bokkon ci ñi nga xam dañ dan bindal señ bu mag bi ba noppi itam bu daan waxtaan ñuy témoin waxtaan woowu bu noppee na ko sëriñ bi doon waxee mooy bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko daan leeralaat taalibe yi waaw ndax sëñ bi ay waxam léeg day am ñoo xam ne xaal ji ñii ne duñ mën a dégg waxi sëñ bi buñ noppee day laaj nag ñu bari leeralaatal leen ko moom bokk na ci ñi nga xam ne dañoo mënoon a leeral waxi sëñ bi ba buñ koy leeral euh, duñ ci yokk duñ ci wàññi mm. léeg-léeg bu sëñ bi daan waxtaan it day yëngu naan hmm, comme nii nga def léegi Eh, am ci bis bo xamne ne mag ni dañ nako massa masamba war nga fexé dal ba bàyyi bu señ bi wax ngay ngay ba mu non rek naan hmm, ah mu ne xana ma jëm ba xam ben bis mu ñew señ bi di waxtaan mu ne ciel señ bi di wax mu ne ciel ba mu yàgg señ bi daal ne masamba kan ne xanaa dafay néewut mu ne ko mbacke ma ngi ni kay mu ne ko dama la déggul nga mag ni xamne kon ndekete lolu mu daan def neex na bi loolu neex na sëñ bi déggoon sëñ bi lool mënoon a wax ak moom mhm. am na jataay boo xam ne sëñ bi dafay wax ak ay mbokki taalibe euh, bi muy wax ak ñoom wax leen lu yéeme ci ñàkk xam ni ñuy communiquer ak sëñ bi ndax sëñ bi mag ñi dañoo xamoon ni ñuy communiquer ak moom mhm. ci ñàkk koo xam xay na ci ni ñuy tontoo sëñ bi kenn kooku ci ci ci mag ñi ne ko ah Mbàkke loolu day loolu day yéeme na lool loolu de kéemtaan la mhm. sëñ bi nag xanaa Masamba Kan dafay néew ñu ne nañ ko wooyi bi ñu demee wooyi ko mu ñëw toog sëñ bi jaaraat fa mu jaaroon sëñ Massamba Kane ne ko hmm, Mbàkke loolu de raw nam xel. mu ne ko xekk saa. xam ne Massamba sëñ daal nekkoon koo xamante ni daa déggoon sëñ bi ci jamono. xam ne déggoon sëñ bi nu waxee rek. dina xam ne sëñ bi ni leen ko war a toon mënoon a communiquer jege woon sëñ bi loolu itam sëñ bi da koo jegeeloon boppam ndax pastif hmm. bi xamoon na ne sëñ Massamba Kane da koo bëgg ba eh, am na boo demee Njaareem sëñ Ibra Bousso doomi sëñ Massamba Kane dem na fa hmm. ànd ak doomam kilifa gi yor këru njaareem gi wan ko ko ne ko sëñ bi mas naa taxaw rëdd fii aw rëdd daan na fii bu ma fi rëdd wi bu ko kenn jéggi fekk ma fi ko ko jéggi fekk ma fi eh, sawara nga jëm ku dul Masamba Kanni ak Ibrahima Fall bu mu jéggi rëdd fekk ma fi. kon loolu day firndeel ne moom liggéey ba mu doon liggéey te di ko royee Seex Ibra di ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa am na lu mu ca jëlee. am na lu mu ca jëlee moo taxoon sëñ bi ne ko yow defal nañ la ko waaye julli ci la bokk. loolu itam maanaam daal suuf gi nga xamante ni moom la Cheikh moom la Cheikhul Khadim may Cheikh Ibra mhm. may na ko sëñ Massamba may na ko boole ko ni ko si julli ci la bokk loolu li ciy firnde mhm. sëñ Modou Fall Dieye mag ñi mag ñi xam Cheikh Ibra xam nañ ko mhm. euh, dafa nett li bàyyi sëñ leen sama rakki bàyyi la sëñ leen mu ngi gane àddina 1915 euh, moo topp ci sama bàyyi wax ko ne ko mas naa toog ci jataayub Cheikh Ibra dégg Cheikh Ibra di yéem sëñ Massamba Kanni ci Pastef naan adoom Massamba Kanni ndokk ba muy gone kii bu doon maga eh, kenn du fekk dara ci sëñ bi. Allah ndokk ba muy gone. xamne limi limi don ndaw ndaw amna pastef bo xamanteni xamante mag ñi naw nañ ko ci mag naw mujj nañ ko naw. te Cheikh ibrahim mi koy naw ci pastef bobu mom ci bopam moy royu kayam mom ci ak talibé Cheikh ibrahim Ibrahima mooy royukaayu suñu Massamba Kanni yi gor góorgóorlu na ba Cheikh ibrahim ci bopam wëlbatiku naw ko ci pastef bi mu am mom macha allah day wone ne kon maj suuf gii ma la doon wax ak liggéey bi nga xamne seigne massa makani Kanni liggéeyal na Serigne Touba te amu ci won genn lenn lu mu ci façon lu bëgg seigne bi. macha allah jërëjëf sang bi tarakallah waye nak for ci wéyu bay ñi ne fi nga xamante ni fi la euh, marché Daaru Xuddus bi nekkoon ak li ko weesu yëpp mel ni bokkoon na ci pàkk yi nga xamante ni sëñ Massamba Kanni Bousso daan na ci bay mm-hmm. di ko yóbbu Seexu Xaadim jërëjëf loolu loolu lu am solo la sëñ Massamba Kanni dafa teel a gor sëñ bi da ko gor loolu bari li ko tàmbalee marché Daaru Xuddus jëm noonu ba ca kaw mm-hmm. Daaru Xaadim jàpp ca ginnaaw Daaru Xaadim loolu lépp ab gorama leen lu nekk dinaa la jox firnde mm-hmm. mooy sëñ Daaru bi mu fi bàyyi ko góoru yàlla la woon suñ Darou Assane suñ Tuubaa wax na ci moom yu kawee kawee bi mu fi bàyyi ko njabootam suñ Fallou sëñ Fallou Ndiaye dafa ñëw ci Cheikh Moustapha mhm. ne ko njaboot gi dañoo bëggoon a dëkk si Touba. Cheikh woo sëñ Massamba Kane ko njabootuk sëñ Darou Assane dañoo bëgg a dëkk si Touba seetal leen fu ñu dëkk mag ñi itam daaw ñu bëtt hiérarchie yooyu lan lu ci nekk ka ko sëñ bi séddee buñ ñëwee dañ ko koy bàyyee dina feeñaat ci kanam tuuti ci exemple yi ma lay joxaat mhm. Euh, bi mu waxee loolu suñu Masamba Kanni suñu Masamba Kanni fekk booba mi ngi bay foofu tolloog marché bi Daaru Xuddoos bi noonu mu jël loola jox ko addiye njabootoog suñ Daaru Asan jàllale ay toolam moom fii ñuy wax is bu tarxiya euh, Daaru Naim la tuddoon loolu man mii maa ngi fàttaliku sax bi daam ñang di nekk chef de village bi is bu yi ci boppam keroog bi jëwrin euh, suñ aatu ñëwee ci suñ ab laat suñ ab laat da koo yabal ci sama baay man mii di wax ak yow suñ daam so ilimaan booba moo doon jiite ci jumaa ji nek khalifa seigne massa Kanni yilif fof ci lima la doon wax legui ne la njabotuk seigne bi duñ xëtt hiérarchie yu mel noonu seigne abdallah da da yabal jëwriñ seigne ato yalla nako yalla doli yermane te doli ko ngeureum ci barke Seexul Xadiim bi ñu ñew fa 7 h du matin lañ fa ñew ci kër ga lolu sama magam mako wax man booba juddooguma euh, biñ fa ñewé ci ndigalul seigne abdallah te la len sama bay jox fi ñu nek tay muy is bu ci asalem mhm. fofu bi dam nañ di nek chef du village bi man mi mang koy koy ko suufu seigne massa Kanni won am na juróomi poste de santé yoo xam ne sëñ Saaliw da ko tabaxoon Touba poste de santé bu ci nekk suuf sam ko tabax ka ko goroon poste de santé bi da koy jël teg ko ca loxol njaboot googa boo demee poste de santé ba fa nekk ci wetu daara Hizbut Tarqiyyah yi euh, Cheikh Seydil Makhtar moo fi nekkoon bi ñu koy inauguré da koo jël teg ko ci loxol njabootuk sëñ Massamba Kanni ñu tuddee poste de santé ba sëriñ Serigne Massamba Kanni loolu beneen firnde la ci kon ba fee mu nekk di Daaru Xadim nga xam ne atum 1913 ci la ko sëñ Touba woo ba mu ñëw booba sëñ Masamba Kanni dafa dajale aw jiwoom bëgg a dem naawel bay ñëw ci sëñ bi ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma sëñ Masamba sëñ mag bi ne ko Masamba foo yëngoo ren ak fare yi mu ne ko dama bëggoon a dem naawel wéttali waale soxna sa waalo mu ne ko waaw loolu de baax na waaye nag dama laa bëgg xamal ni eh, liggéey bu ne ab dërëm boo amee ci sama dëkk bee di Touba moo ma gënal ab junni boo amee àll loolu day wane barkeel gu Touba barkeel loolu ci jaamu yàlla ak ci julli dañ koy fekk ci masjidu nabawiya hmm. julli goo fa julli beneen beneen mooy muy day wane ni fonk gim ko fonk motax mu bëgg ko saxlo Touba. motax mu bëgg ko saxlo Touba effectivement motax mu mu ne ko bim ko waxe lol mu ne ko demal wol ma Mouhamadul Fadil sama dom lol seigne Fall net li nako mm. ak seigne Massamba Mbacke mami seigne Cheikh mi. macha allah ñu ngi ñi ngi nuyu bu baax. ak njabootam bu baax ku tedd ko xamanteni man na na jotaay bu man di dugg rek da koy tewlu murit saadix la murit saadix la murit saadix la mas nañoo tase ca booba wàccaay màggaluk seigne Massamba Mbacke la mm-hmm. ci kër euh, euh, soxna kër sëñ sëñ kii bu sowaay marché Ocass mhm. foog naa seen i taalibe woon taalibe sëñ Masamba lañ ñu doon fa defee wàccaayu euh, sëñ sëñ wàcc wàccaayu màggal ak sëñ Masamba keroog jataay booba euh, dama fa doon liifantu di wax ci sëñ bi moom fa la ko fekkoon fekk fa sëñ Fàllu mu sëñ Modou Fati xëy ak kilifa yu bëree bëri waaye keroog ñoom ñi ay at bi bari lañ jël di ma ko jox ndeysaan ndax bég ci ci ci kaddu yi ñu fa doon wax ci sëñ bi ñu ngi koy ziyaar te di ko ñaanal mu yàgg fi téwér sëñ bi wax sëñ Fall ne ko wol ma wax sëñ Masamba Kan ne ko wol ma sëñ Fallu sëñ Modou Moussa ak sëñ Masamba Mbàkke borom ñetti kaala yi sëñ bi wax sëñ sëñ sëñ Modou Moussa ne ko demal tindoo di nga muy xos na ma aab hmm. nga sanc fi sëñ Fallu dem ndindi sëñ ma Masamba Mbàkke dem daarul Karim sanc fi sëñ Masamba Kan ni dem daarul Xadim sanc fi boo taxawee pencum daarul karim di seen pencum daarul xadim boo ñëwee pencum daarul xadim di seen pencum tindoodi di seen tindoodi boo demee tindoodi di seen nit yi ñu gaaw dëkk bi nga xam ne ci wàllu wàllu wàllu wàllu xam-xamu ndëkk loolu sëñ bi lim ci jublu mooy protéger waale dëkk bi ba nga xam ne ñoo ñooña dara du leen romb. dugg su ci biir dëkk bi luy nuru ak yàq. wala waaye tamit boole leen xam ne bokk benn deret. boole leen mi ngi ko loolu ak ak bokk la gu kawe gu yéeme goo xam ne sanc yooyu ñoom la sëñ bi joxee noonu ndigal. Mhm. ñu sancandoo ko ci Touba suñu Massamba Kanni doonoon koo xam ne sëñ bi da ko boole woon ak mbooloo mu bari. waaw mbooloo mu baree bari foog naa askanu Mboussobé moo ci gënoon a ëppoon ay ay mbooloo ci ci ci askanu Mboussobé bi mu bokk loolu ba jamono jii sax daanaka jeexit jooju mu ngi fi. Mhm. sëñ bi boole ko ak mbooloo mu baree bari am na bis boo xam ne dafa génn santaane ay toolam génn mbooloo mi fees dell tool yi mu ne ah yëf yi daa mel ne ak waroo ngi ciy bëgg a dugg. lii de bokkut ak la ma jaayante woon ak sëñ bi la ma digaalante woon ak moom. daal di tas mbooloo mi yi ñu bari. daanaka mbooloo mi ca la wàññi waaye teewul ñu bëree bëri maa ngi fii ak list boo xam ne bu ñu ko waxtu bi mayoon dama koy lim ba mu jeex ñëpp ay mag la ñoo xam ne dañoo àndoon ak sëñ bi mel ne sëñ Mor Gueye Jaxeer ak ñeneen ak ñeneen sëñ ba Awa njaay ca Saloum sëñ Babacar Ndiaye Mbuuma ñoom ñëpp mag ñi sëñ Babacar Ndiaye Mbuuma ak Cheikh Cheikh Mabba Awa ñoom moom sëñ bi da leen a booleendoo ak sëñ Massamba Kanni ne leen wax sëñ Massamba Kanni ne ko yomal xiyaam ñii yow laa leen di laaj mhm. keroog bi Cheikh Mabba di waaj a wàcc ab liggéey lu yéeme la ci bi def sëñ Masamba Kanni sëñ Tuubaa da ko wo mu ñëw mu jox ko càngaay li jox ko parfum yi ñu war a ak lépp ne ko roog màbba awa daf maa tàggu demal taxawal ma ko sëñ Masamba Kanni jóge na njaareem dem ba Saalum ca kër màbba man dem naa ca dëkk ba fekk Seex ak di waxtaan ak ñoom te moom sëñ bi da ko yebal ngir mu taxaw si ko te jox ko càngaay li mu ko war a taxaw ak lépp sëñ Masamba Kanni ñëw nuyoo waxtaan ak ba waxtu jot ñu defaral ko néeg ba muy dem moom mu dem toog rek xam na ne li ko sëñ bi wax moom. ala ko lixal du jaas dana ci teg bët. ñu tëdd ba guddi jekki-jekki njaboot gi dégg njaboot gi yëngu di di di di di di waaw di jooye mu daal di jog xam ne la ko sëñ bi waxoon agsi na mu daal di ubbi wala si mu yoroon gaal gi daal ne lii de sëñ bee moo ko joxoon ne ma naa ko naa ko ko taxawoo. allahu ndax ne woon na ak ruuxam tàggu na ko daal di taxawu Seex Maba njaboot gi yëpp nag daal ne ko kon ginnaaw yow la fa sëñ bi yebal kon yow la nu booleel nun dun la génn daal di yeesluwaat ci moom. loolu eh, ak boo xam ne Seex Maba dafa bëggoon a siyaare sëñ bi mais jamono boobu xam nga tubaab yi ni ñu def ak mhm. mm, ci moom mhm. leetar bi maa ngi gis sëñ Masamba Kan di ko ci wax naan ko ginnaaw amoo autorisation tubaab yi eh, ngir nga mën a ñëw njaareem ci sëñ bi dina jafe waaye addiye yi nga bëgg a jox sëñ bi boo ma ko yónnee ma yóbbul la ko ba ci moom kon loolu day firndeel boole gu leen sëñ bi boole. boole woon kon loolu daal mu mate ko sëkk ndax ki naan la soo ma ko yónnee ma yóbbul la ko maanaam am na ab cër ba pare am na ak mat ko toll ni li nga jox moom xaddu ci dam ba noppi yéene la ko itam. Mhm. bëgg xam na nag sa jëmmu gàllankooru na waaye ginnaaw sëñ bi moom sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatu nazamtuha mhm. xaw xaw fa ixtiraar mhm. wala sax euh, bayit wa ma bëgg a wax sax mooy euh, ci ci ci ci ci ci addiya wala ci tuuba li abdin muridin Sadiq, lahum wa bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati ñett yi nga xam ci la am murid di mhm. kon benn boobu taxaw na moom tam da ko yéene moo tax mu bëgg addiyee ji mën a ci sëñ bi mm. allah sang bi ci ci ci laaj am solo yi ak ci waxtaan wi nga xamante ni leeral nga ko muy loo xamante lu am solo la wax dëgg yàlla yal na yàlla barkeer sunu sang bu ci barkeeram ak dafa mel ni nit ñi neenan daan na daan na way yoo xam ne daan na ko jëmale ci sëñ bi. Mhm. am ñu bari sax ñu ne woon dafa mel ni dafa doon takkaloo sëñ bi. Mhm. soo gisee am mbindam dangay ngay jàpp ni comme mbindam sëñ bi la ko bind comme yooyu mhm. noonu soo ñu doon si ñëwal jërëjëf xam nga moom. dafa dafa def dafa def li ñuy wax xam nga doomi sëriñ bu soobee sëñ bu soobee dafa ñaanoon boroomam balaa samp kër doom jum jur na doon walliyu ba suñ borom may ko ko mu doog a samp kër moo tax yéex naa samp kër. ma mor Say yalla nako yalla doli yermande wacc na liggey jamono yi yàggut ma mor Say mu sëñ Ibra Fëri mhm. mag ñi xam nañ ko moma ma li ci làmmiñam ni ma la joon sëñ Abdou Khadir mbakem sëñ touba ne ko ndax nit man na jébbale njabotam gu gut adina lay am ci mourid yi mhm. sëñ Abdou Khadir ne ko ah kay man na ne ndax sëñ bu soobee defal nako ko touba Tuubaa bu soobee kon laataa muy samp kër mom dom yam ci wara am yépp jébbal na leen la ta laataa ñuy ñëw sëñ ma Kanni kanimi ci ñu la bokk gané adina nawel itam nawel lako fa yëpp woon moy keroog bi nga xamné mabba daxon mabba jaxu ba daanu na ca somb sëñ Bousso bi benn buuroo ko woo daggal ko foofu naaweel may ko mu dëkk fa dëkk fa ak moom looloo tax soxna asawaalo wàccee fa ab ñu denc ko fa tax ndax guerre bi la 1878 lu mat fukki at ginnaaw bi mabba daanoo ca somb la Kanni ci la bi mu ganee àddina itam jang alcorane bu mokal ko dem ci sëñ bi djeblo fekk ko mbacke bari Jolof lata sëñ bi dem ci geej mhm. bi mu djeblo ci mom boba jangum xam-xamam yeggagut waye pastéef bi rek ak bëgg gi sëñ bi eh, am sax ñuy bind lettre sëñ bi nan ko Masamba Kanni na dem na jang ali wum ci. boba lenn ci ay kilifaam la xeyna boba itam liñ ko bëggaloon moy lu baax rek ndax xam-xam mo wara jitu ci doomi soxna ju ne mhm. ndax lepp lo jital lu xam-xam man na la jural ab coono. Mhm sëñ bi jël bi wo sëñ masam Kanni wam nyong ñëw mu ko letter bi de sa mbokk yi ko fi ne. sëñ Masamba Kanni ne ko Mbàkke dal letter bi lépp lu ci nekk mën naa nang nangu ba mu des lu may tàqaleeg yow lu ci ne rek mën naa nang nangu ba des yow bi ko kon baax na demal toog déglu ma bi xam ne kii moom noppeegul ngir go ak mom mu wo ko dalal ko téere xam-xam ko koo jàngal fekk booba tàmbali na njàng mi doog a bi jangal ko mun sudur ak yeneen i doog koo takk nag jël ay téere jox ko boole kook sëñ Mor Galaay Jaw ca càlleen ne ko demal yeggale foofu sam njàng sëñ bi yebal ko fa ndax booba moom sëñ bi ci boppam waaj na ngir war a dem ci tukkib géej gi ci baatin xam na ne liggéey bi léegi mu yegsi mu yebal ko càlleen ci sëñ Mor Galaay mu dem jàngi sëñ bi dem ci géej gi liggéey kon tàmbali na am njàngam tàmbali ak tarbiyaam ci loxoy sëñ bi sëñ bi doo ko dem ci géej gi bi mu jàngee ba noppi bind ab leetar bu ñu ko waxtu bu mayoon détail yëpp dama la koy indil wan la leetar yi liiral la ko Euh, bind leetar sëñ bi ne ko li nga ma joxoon ci ab lim ne ma naa ko jàng jàng naa ko ba noppi ba jàng naa muxtasar say xalil léegi sa ndigal moo ma fi bàyyi sëñ bi jox ko ndigal mu jugee càlleen fekk ko Mauritanie booba sëñ bi ñibbisi na ba nekk Mauritanie. kon sëñ bi demoon na Mauritanie. dem na Mauritanie ñaari yoon. te tàngoor ak xiif waaw ca dagg bu metti ba dem na Mauritanie ñaari yoon. mooy boobu mu jàng ba noppi bind ak xasidaam dem di yeesluwaat ci sëñ bi. kon moom ku fonk jébbalu la ak jaayante moom ci xasida bi ci la jébbalu ci xasida gi ci la yeesluwaat ak jaayanteem ndax jébbalu woon na laataa sëñ bii dem tàmbali tarbiyaam tàmbali am njàngam boobu noppi na alxuraan kon ndax xasida war naa doy waar xasida gu yéeme la goo xam ne gu gu neex la gu gudd la itam xam naa ne lim jàng lépp mën naa mën naa bañ a yomb waaye dinañ ci lim euh, ab lim boo xam ni ci ay bayit euh, dañ koy jàng ñu dégg ko bu ko defee ñu xam ne sëñ Masamba Kan itam non seulement euh, góor yàlla la woon waaye waaye bindkat la woon xam nga ba pare dafa nuroo sëñ bi uslub ci waxin mhm. ci ni muy bindee xasaayit loolu dama la doon lay taayal am njàngam li ko tax a mën a bind xasida mhm. mooy jaar na fi doomi soxna yépp jaar doon ab daanukat pasteef am pasteef boo xam ne bu bu bu mag ñëpp xam ci moom la waaye itam doon kat boroom xam-xam boo xam ne day bind ay xasaayit yoo xam ne mbindum loxoom ak mbindum loxoom sëñ bi daanaka dafa waye tam waxinam ak waxinu sëñ bi tam dafa nuro machallah kérok bimu démé Mourtani di fekk ji sëñ bi dafa bind ak gu gudd xasida jayante wax sëñ bi neko mantiqati kal jismi lil baaxil xadim fii sunnatil mukhtar bil abdil khadim allahu akbar sama jëm ak sama lépp jël nako jayante ko jébal lako waye nak ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni sëñ bi di def ak yonente bi ak yàlla moom noonu lay def ak sëñ bi mooy jël cër bi yàlla moom jox ko ko cër bi yonente bi moom ko ko li sëñ Tuubaa noonu lay def ak yonente bi li muy bëgg bëgg rasulullahi du jël cërub yàlla mu ko jox ko rasulullahi mm-hmm. du jël cërub rasulullahi mu ko jox ko yàlla mm-hmm. kenn ku nekk lim moom da koy jox sëñ Masamba Kan yi da gis ne noonu lay def ci biir xaside gi bu koy taalif da gis ne euh, li sëñ bi soppi naa sama yitte def ko yittey góor yàlla ya yittey góor yàlla ya mooy lan mooy ne dann seen borom kon bi mu ne dann Serigne Touba dafa yëg ne kon moom nee na dann boromam ndax man yu ten raso la faqad ataa allah kon boo toppee ki fi wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam topp nga ki fi yaa nga dëgmal sa borom kon moo tax mu ne saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijal yi wajhu zil jalal mhm. loolu xasida la goo xam ne gudd na bayit yu baree bari la waaye wax na ca biir ne alhamdulillahi rabbil alamin summa salaatu wasalaamu kullahin ala nabi ala nabi muhammad ibni abdil ilah rasuluhu ni'ma wa kulli man tala wa baadu qasdi haahuna taslimu bi yadi man sumaatuhul xadimu وبعد قصدي ها هنا التسليم بيد من سماته الخديم بنوبي داني سما اوبجيكتيف موي جيبلو سي سيرن توبا سما اوبجيكتيف موي جيبلو سي لوخوي سيرن توبا الله ني نكو سي سي غير غير لان موتاخ كي جيبلو من لي وجه من له الاراد والسماء وكل ما كان وما بينهما ملتمسا كوني عبد الله في سنه المختار باب الله damay djeblu ci serigne touba ngir djem yalla ngir jëmmé yàlla mi nga xamné moy borom asaman moy borom suuf waye mom mom ci li ci digënté bi itam suñu borom ak mom lolu fa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu lana likay kay yaddul lanaa alayhi jalla wa ala yaqina djeblu ci serigne touba ngir jëmmé yàlla mi borom asaman ak suuf ak li ci digënté bi waye ngir lan serigne touba tegtal ñu tamkiin ngir ñu jot ci martabam tamkiin lana likay kay yaddul tamkina nga gis ne kon ah. mag ñi moom eh, kenn ku ci nekk bi ngay jébbalu ci Sëriñ Tuubaa am nga say objectif yoo xam ne moo la tax a jóg waaw moo tax mu ne wa ballaxa rasulu ma rasulu ma qad a tabliquhu min rabbina aw nudiba summa raa bihil ilahun muttaqun al aaqiluuna fil jinaanil muflihun wa baadama aaba ilal baaqil xadim xalafahu fiina xabibuhul xadim allahu akbar wax ni ginnaaw bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jotalee la ko waroon mu waroon koo jotal mhm. moom yonente bi la alayhi wa sallam mhm. ba gaa yu baax yeeg ñëpp ànd ca topp ca léegi nag Serigne Touba moom moo ñëw wutu ko ci suñuy jëmm moo tax ma di ko jébbal sama bopp macha allah waaye yi de xam naa ne suñu maam moo su ko déggee te yaakaar naa dafa mel ni ma ngay bëmm ca ginnaaw ndax maa ngi koy dégg sànq ba léegi ma allahu akbar ndax si neex yi maanaam takkaloo gi daa am solo ba pare bëy di dafa kawe lool yéeme na xasida gu gudd la goo xam ne yéeme na waaye ci tënk ma joxaat la geneen xasida goo xam ne pour wan la tawxiid yi ne woon ci sëñ Masamba Kanni dafa def xasida goo xam ne man zànn la ko tuddee comme man zanna gu sëñ bi gu sëñ bi xasida ak tawxiid la goo xam ne dañuy fi abadin nafxan wa durran maan yaturat maal kamati takalluf la man zanna man zanna gee xasida ak tawxiid la xasida ak tawxiid la gi itam sëñ Masamba Kan di wax ne képp koo xam ne jàpp nga ne lor ak njariñ nekk na ci loxol kenn ku dul suñu borom kooko danañ ko sànni danañ ko sànni ca biir sa waroote danañ ko toroxal man zanna anna lahu haasayni an ahadin yaxwil marama wasaada alqawmi bi sadadi man zannahu aajisan an kulli matlabatin yasir faxiran bi xusraanin bi laa adadi képp koo xam ne jàpp nga ne suñ borom lottu na ci jariñ la wara mu lor la yow ci toroxtaange ngay dëkk waaye nag képp koo xam ne jàpp nga ne suñu borom lottu mm-hmm. euh, euh, na ci li nga bëgg yow te di ko sàkku kooko day ci perte ak ñàkk ci ngay dëkk من ظن أن إله العرش مقتدر على الجميع حوى ما رام عن نكد ظننت أن إله العرش لازمني دنيا وأخرى بفضل منه والمدد ولا تنالوا سواهم كل أزمنة والكل فيهم بطاعة ليجتهد ما شاء الله عليك قلبي وروحي والعيال معا بالله جل وبالمختار مع سندي tarkal la ci man sànnaga la ci man sànna kon di xasiida goo xam ne lépp tawxiit la ba jeex tàkk suñ borom la ciy kañ moom la ciy tàgg di ko dénk boppam di ko dénk ak njabootam di ko dénk léppam kenn du suñ loolu genn la ci xasiida yi nga xam ne sëñ Masamba Kanni euh, taalif na ko euh, bu ko defee itam am na yeneen i xasiida yoo xam ne euh, yu baree bari la gisal nañ ko lu mat juróom-ñeenti xasiida su ma juumut te am na yu ñu gisul ndax dégg naa ñu ne amoon ak lakk gu métti gum lakkale woon mu ngi ba pare itam taawam di bàyyi suñu maram mas naa tukki bàyyi fi ay way ndaram ñëw fekk max yi jëfandikoo ko lu bare bari ci diggante yooyu la demee waaye gis naa leetar boo xam ne Cheikh Ibrahima Fall la koy bind yoonu ñaareelam bi muy demee Mauritanie ci sëñ bi di wax Cheikh ne ko sëñ bi moo ma woo moo tax mënumaa jàdd ne kon danaa jàdd ñëw siyaare si la waaye nag damaa bëgg leetar bi nga denc ko ba ma ñëw ci yow siyaara si la ndax way naa la xasida goo xam ne wax naa ci sa taaru jëmm ji wax naa ci sa taaru jikko yi wax naa ci sa taaru sa melo yépp ne ko nag leetar bi fat daxirha xattaa ji ëtug la ko la ko tëjee dencal leetar bi ba ma ñëw ci yow xasida googu ñun ba léegi teguñu ci bët te gis nañ leetar bi leetar bi sëñ Cheikh Ndigal Fall moo ko jox sëñ sama wayjur sëñ Ibrahima buso moom ma Massamba Kanni donc lii xasida la goo xam ne xasida ak la goo xam ne itam sëñ Masamba Kanne ko taalif yaa yallaahu yaa zal xalqi yaa mugni karim wahaabu yaa razaqu yaa xayra hakim salli bi xaqi jumlatil asmaai laka wa ma fil ardi wasamaai ala nabiyika rasulil alami muhammadun xayril wala wa sallimi summa ala maan wa sahbi wa jumlatil ahbaabi xayra rabbi xasida la gu gudd goo xam ne habliya arzaqul kiraami ajmain bi jaaxiyi summa qini charral laayin di ci ñaan suñu borom di di di di ci jéggulu suñu borom di ko ci ñaan ay maxaama yu kawe wali yahab makaarimal axlaaqa mustaamilan biha ma al arsaqa wali yahab xayra ridaaka kullahin su maj su maj alan nii min xiyaari saalihin nag ma defal tedd ngay jikko yi nga may ma ma làmboo ko waaye itam nanga ma defal wërsëg wu yaatoo waaye itam nang ma defal ngërëm waaye itam nang ma boole ci sa gaa yu baax yi mooy saalihiina yi. macha allah macha allah loolu nag saalihiina yi nag la la sëñ Abdou Lahad waxoon wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun mina saalihiina. wallaahi waaw yonente yi li ñuy baax baax baax séeru mbaax bu ko yàlla tuddee tagg leen ba noppi danaan ca saalihuuna. ca saalihuuna kenn ku ne ci saalihuuna yi nga. sëñ Massa Bakar yi day ñaan yàlla mu. boole ko ci sëñ Tuubaa di ñaan yàlla mu boole ko ci saalihiina. taarikal te yaakaar naa taalib sëñ Tuubaa ak murid saadix daa nekk loo xam ne lu waay la. Mhm. sëñ Abdou Lahad yaakaar naa suñ toppee lii te xam naa ni li olof naan li duuf ci nag yi xëjul ci cin li mm-hmm. te xam nañ ni ku toll ni sëñ Masamba Kandi mm-hmm. waxtaane ko ci benn jataay moom munta nekk ay jataay jataay lay doon mm-hmm. waaye xay na li ñuy wax ñi nga xamante ni mooy mbokk internet yi ñu bëgg a déglu ba nga xam kan mooy sëñ Masamba Kandi bu sa xaqiiqatan màggal gi soreetut xam naa suñ paree si laaj dina leen jox dat bi bu sooba yàlla ko yónnee su ngeen ci àggee deen fa def lépp loo xamante ni jàpp naa ne luy wane la luy wane jëmmam jël ak ay réalisation incha allah xam naa ne ña ngi koy waajal ay exposé yu am solo yoo xamante ni lépp di ngeen ko fa gis mm-hmm. ci dund ku tedd ki nga xamante ni taalibe Cheikh Khadim la woon sang bi lan mooy doon kàddu gu mujj gi tàggatooy rek su ko defee ñu mën koo tënk ba ca bis bu màgg ba ñu ànd fa ak ñëpp mën caa yegg seeg jàmm xam ne dinañ ko waxtaane mu gën faa yaatu taarkan la macha allah jërëjëf euh, dese naa fi xasida yu bari yoo xam ne mm-hmm. bëggoon naa ko jàlle waaye temps bi du ko maye mm-hmm, am na xasida goo xam daarul xadim la ko sëñ Masamba Kan tënk waaw bi leen sëñ sëñ bi joxe ndigal ñu sanc moo ko sëñ Masamba Mbàkke ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fall moom bi mu sancee ba noppi dafa jël tur wi ko sëñ waa jox muy daarul xadim taalif ci ak xasida mi ngi tàmbali jël deel ji def ci wu bayit alifig mu def ci yu bayit raagi mu def ci yu bayit mi ngi ko tàmbalee ci daani raja i li baaxin xadim karimin mujibin muridal xadim ilayhi xitaabi bi qutbil wara bi jaahi nabiyi rasulin naim rafaatu bi hamdi wa shukri maan ilayka ilahi rida an yadum ajib daawati min lisaani wa qalbi wa kawin muradi antal karim li yaxfir wa habli rida albaqa wa mulkan kabiran bi cheikh alxadim xabatu bihi kawnakum li maan raufan latifan xaliman rahim daani daani stajib summa kun li ridan wa niyaati yaqbal qabula عليم يسر دواما وهب لي ردا فتوحات غيب بسر عظيم مرامي يكوين وصل دواما وسلم على المصطفى بالخديم ما شاء الله موي وقت موي ني ني مان كو في ريك ديتاي بيك يوي واي لول ريك موي خسيده كيغا خامني موي دارو خديم امنا خسيده كو خامني نياتي بيد لا dañu demone mok seigne mbacke bousso siara ji seigne omar diop bou mbacke mbacke bawol nan amna xati de bom de so jamono ji nan duyo bu neex la mor da wax tok wax dara Mm, ci Omar toog wax nga wax dara. mu ngoog ci a laaj. suñ Omar Diop bokkoon ci mag ñi. suñ Mbacke Bousso dafa ànd ak suñ Massamba Kanni ñu yendal ko biñ ko yendulee ba noppi suñ Mbacke Bousso daal di jël Omar. ñett yi ñett yi moo ci am. ayin mim ra ayin mu def ci bayit mim mu def ci bayit ra mu def ci bayit muy ahadtu qarman labiban salihan omara xillul karimil nada falfadlu qad nusira minni salaamun buida laada lazamahu irdan lahu wa huwa kulli kullahu shakara ribhun liman jaahu lillahi aw nasabun xusrun liman jaa li gayrillahi aw garara di ñetti bayit yi nga xam ne sëriñ Mbàkke Buso def na ko ci turu omar bi sëñ Masamba Kanni moom laaj big bi daal di jël jóob ji daal di def ñetti bayit moom itam جين دي مودف تيو واو دي مودف تيو بيت باغي مودف تيو بيت تامله كو لرب العرش خالقه نار المريدي وهذا القول قد ظهر من من ني دانيو امون ديغ kéemtaan la ñoom moom ndax yow xam nga ne bu jëlul jaar nga diglu ko rek mun a jësbul muridi jësbul muridi li rabbil arshi xaaliqahu naarul muridi wa haadha alqawlu qad wahara wa huwa allasi saada man kaanat ashiratuhu fi diini axjala man aashu xal lan durara bahjul ashirati fi sirrin wa fi alanin lawlaahu saahu la daa man qad baral bashara macha allah ñetti bayit yi nga xam ne moom tam taalif na ko ci jóob ji mooy wane ne sëñ bu mag bi li ci moom ci ci man damay wax ne waxtaani sëñ bu mag bi ci ay xam-xam ak ay yooyu sax ëpp na ñii rek dañoo doy sëkk li maanaam lii dafa ëpp ki toog ci jataay toog amul dara lu ñu def kee defu bayit mu a ko alma big bi ab baa nga jël ci fas yéene ci defi bayit waaw maanaam si irtijaal goo xamante ni waajoo xam nañ ci yu mag yi bala ñu daan waay dañ daan waaj waajaay wu yàgg toog mhm. toogin wu yàgg ngir mën a am inspiration barkeb sëñ Tuubaa bi barkeb sëñ bi ci taalif moo leen dal ñoom ñëpp boo murit yëpp mag ñi toppoon sëñ bi ni ñuy binde da ngay gis ne barkeb sëñ bi ci taalif laal na leen sëñ bi da daan wax ne buy bind moom li ñu koy mooy ukkutub bokkutub lañ koy wax rek boo gisee sëñ bi ni muy taalifee da xam ne kii du woon ko toog di xalaat bokkut ak mag ñi nga xam dañuy toog di xalaat di taalif mm-hmm. sëñ bi moom li muy bind ca lawxul mahfuus la koy xoole di bind directement moo tax da ngay gis méthodes yi yëpp ci sëñ bi lañ ko jëlee sëñ bi moom ngay dem ci muqaddimatul am daax way naka laa laa xoolu xonag yi mu jël waaw def ci fukki bayit ak ñaar wallaahi jël alif def ci fukki bayit ak ñaar jël nuun fukki bayit ak ba laaya ji jeex mu di ci tagg rasulullahi alif ba jiin dal ha waaw saay ba ca arafu mujj wa di siin su tooy bayit arafu ci nekk sëñ bi dana ko jël bind ci juróom-ñaari bayit yoo xam ne rasulullahi la ciy dëkk la ciy la ciy tàkk alif jël na ci juróom-ñaari bay tagg ci rasulullahi baa def na ci juróom-ñaari bay tagg ci rasulullahi loolu mooy xasida ak fathul fatah bam jeex kon méthode boobu méthode sëñ bi la te ci sëñ bi rek nga koy gisee ginnaawam itam ay waa këram dong ñoo ko ci daan jéema ñoo ko ci daan jéema xeeñcu kon loolu day firndeel ne rek mm. sëñ bi moom macha allah tabaarakallaahu suñu borom li mu ko may ci taalibe yi daa doy sëkk daa doy sëkk ay taalibeem dong mm. la ko sëñ Moussa Ka doon wax ca place ñuy màggal la say gone yi toog waaw <laughs> eh, loolu taalibey sëñ bi eh, foofu na karaamaatu yi wàlli karaamaatu wàlli yooyu sa mboobu itam néeg uh-huh. waaw yi karaama yañ am la gën a kawe ci ñoom moom mooy mbalitu néegum sëñ Tuubaa tamit lu wér mbalitu néegum sëñ Tuubaa sëñ saa Seex Jenn laaj nag ko bis booba mag ñi dañoo toog nii di werante diggante xut boog xawsu eh, kan mooy kilifa ak morom ji ndaw jékki-jékki ñëw booba Seex Isaa ngi doog a ñëw ci kër bi daan ne ana Seex mu ne ko maa ngi mu ne kaay wuyu ñëwee sëñ bi ne ko Euh, moo Issa xanaa mosoo gis ndaw yu yu farlu ba àgg ci toog di waxtaane ji de mu ne ko ah déedéet loolu kay mbàkk féerig laa ko gisee mu ne ko waaw waaye nag dama la cee bëgg a ubbi te lu weesu tey bu leen ma ko laajati mhm. ne ko xut bu mooy kilifa ak xawsu bu ñu demee ba àgg ca eh, yamal xiyaam euh, xut bu ëppante naag di wax day toog rek di junj ndax dara jàmm ji koy waaye la muy junj nag xawsu doo nga koy mën a xam daan na ko waaye nag lii moom bu leen ma ko laajati ndax maa ngi ci tolloon ba ba may toll fi nit di toll ñu naan ko baasin mi mara booba foofu laaj toll allahu akbar muy diggante ay xutboo ki xawsoog yooyu non jamono jooju la ci toll waaw bi sëñ bi naan baasin mi mara ay juróom-ñaari at booba la toll ci darajey xutboo ki xawsu moo tax sëñ bi du ñuy ñëpp sëñ waaw sëñ Tuubaa du ñuy ñëpp maanaam <laughs> Sénégal Sénégal niteeguñ de. <laughs> yal na yàlla def taw bi yow Sénégal ba xam naa ne xam sëriñ jàmm mooy lépp sëñ bi lan mooy doon tàggatoo bi da xam naa suñ ko toppee rek. <laughs> kéemtaan la mos a yaakaar naa ji ji mu dugg la rek. ngi sant bu baax di santaat sëriñ Tuubaa bu baax baax di di gërëm ñëpp di eh, bis bi daal le 26 octobre la. Mm-hmm. ca daarul xadim lañ koy defee ñu di ci màggalit eh, guddi gi sëriñ Tuubaa wane eh, sëñ ma Masamba Kanni rasulullahi loolu lañ ciy màggal mm-hmm. di ko ci fàttaliku ndax daa ñëwoon tàggu ko bëgg a dem màkka sëñ bi ne ko toogal guddi gàmm eh, ñu toogee ba guddi gi sori lool mu jékki-jékki perum penku mi ne déer daanu mu gis leer gu mag ñëw ba ci sëriñ bi toog ci kanamu sëñ bi sëñ bi di dindi kaala yi par benn di dindi kaala yi par benn ba mu des bopp nen leer googu toog ci kanamu sëñ bi sëñ bi yiisaa mu jàng jës bu yiisaa mu jàng mu waxi bu yiisaa mu jàng mu xàddimatul am daax ba fajar ba biñ noddee fajar allahu akbar mu ne mes sëñ bi ne ko ma sàmba aceen julli ji loolu sëñ sëñ mag bi ne ko kii rasulullahi la loolu la ñuy màggal fële ca daarul xadim ren nag mu taseeg eh, xeer wi ñu war a teg sëñ bi joxe ndigal a Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir ñu teg xeeru jumaay daaru xaddim ci ngoon gi lañ koy def dina fa yebal sëñ fàll moom sëñ Abdou Khadir moom mooy teg xeer yu incha allah ñi ngi ko yëgal ñëpp te di ci woo ñëpp incha allahu taala di sant bu baax ak gërëm euh, waa daara ji ñoom sëñ Mamor ak euh, waa chaîne bi yëpp Touba Mbella ñi ngi gërëm ñëpp te di leen sant ak mboolem ñi ñu doon seetaan di jéggalu Euh, ay murid yi wax moom léeg-léeg tam ba mu yàgg waaw te buñ gaawut kii rek mën nañoo wax loo xam ne <laughs> du bokk ak li nit ñi xalaat <laughs> jërëjëf sëñ Abdou Lahad <laughs> jërëjëf yal na yàlla barkeel te defal leenu yiw ci daraje Moustapha sallallahu alayhi wa sallam amiin mbokk yi ñu bàyyindee ko xel le 26 lay doon ca Daaru Karim incha allah rabbi di ca Daarul Xadim da ci wax ñepp ñu war ci atew ci liggey bu mag bobu non waye la ci ëpp solo ngeen deg ko kenn ku ne ngi màggalal maamam ñi di magal ci letter ñi di magal ci leneen lak leneen waye muy màggal ci lo xam ni guddi gi mu gise woon bi sallallahu alaihi wasallam ta te bi te cheikhul tamit wanan ko ko waye di sante wa kër bamba imo gi nga xamanteni man nañ ci lepp yembe ñoma ñi nga xamanteni ñom la di ak lépp li nga xamante ni tamit nit ñoo ngi koy def ci bi ci am solo yooyu noonu kon yàlla nañu yàlla taw feexal di sant Serigne Mame Mor mi nekkoon ci caméra bi ak Seydina Omar ak euh, gaa yu tedd yi nga xamante ni ñoo tax ba yëpp yemb di wax wa aaxiru daxwaana na alhamdulillah yaxfirullah li wa lakum wa li saa'iril muminin wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën di jot sunu ay vidéo en temps réel da ngay daal di bës fii ñu bind abonné wu nga daal di bës bii dend ak moom rek lépp daal di yem